téeméer lu ngeen xalaat ci yéesu ñaareelu xaaj bi tey ji dañuy wéy ci waxtaan wi nu tàmbali woon ci émission bi weesu te mu tudd lu ngeen xalaat ci yéesu laaj boobu làmp laaj bu am maanaa lool la ndaxte fa nga war a nekk diirub laaxira mu ngi aju ci li ngay xalaat ci yeesu almasi bi léegi nag nanu jëm kanam ci sunu waxtaan ci mbirum borom bi Yesu Christ ci émission bi weesu ñaanoon nañu leen ngeen xalaat ci juddoom gu kéemaane ak ci jikkoom ju sell ak ci waxam yu yéeme ak ci kàttanam gu rëy ak itam ci ay dàkkentelam yu kawe tey nag am na yeneen juróomi laaj yu nu leen bëgg laaj ci mbirum yéesu laaj bu jëkk bi mooy lu ngeen xalaat ci deewam ndax xam nga fan ngay deewe wala nan ngay deewe ndax xam nga kañ ngay dee man ak yéen ñëpp war nanu nangu ne xamoonu ci yooyu dara waaye yeesu melul woon ni nun moom xamoon na fan lay deewe te yëgle woon na ko itam ca yerusalem la waroon a deewe yëgle woon na it nan la waroon a deewe jàngoon nanu ba noppi ni mu xamle taalibeem yi ne ngi dem yerusalem te li yonent yi bindoon lépp ci mbirum doomu nit ki dina mat dinañu ko jébbal ñi dul yawut ñu ko saaga ko tëfli ci kawam gannaaw ba ñu ko dóoree ay yar ba noppi dinañu ko rey waaye ca ñetteelu fan ba dina dekki waxoon na ay taalibeem it kañ la waroon a muy bés bi nga xam ne ca la yawut yépp waroon na rey am mbote ngir xewum ma ca bés boobu la waroon a dee ni yàlla ni sarax suy dindi bàkkaari àddina deewug yeesu wuute na ak yeneen dee yépp ndaxte moom tànnoon na dee moom ci boppam déggoon nanu ni yéesu waxe ne kenn jëlewul sama bakkan ci man maa koy joxe ci sama coobare bopp am naa sañ-sañu joxe ko te am na it sañ-sañu jëlaat ko yeesu mësula def bàkkaar looloo tax mënoon na bañ a jaar ci dee mënoon na yéegaat asamaan fa mu jëkkoon a nekk rek bañ a jaar ci dee wante dafa tànn dee ndax mbëggeelam ci ñeneen ñi joxe na bakkanam ngir nun dee na ngir sàkkul nu mbaal gi warlul nu àjjana juróom ñaari téeméeri at laata almasi bi di gane ci àddina yonent yàlla esayi waxoon na lu tax ramukat bi waroon a dee bi mu naan sunuy bàkkaar tax mu gaañu ne laaj ndax sunuy tooñ bugal gi nu may jàmm moom la dal ay góomam ñoo tax nu wér nun ñépp réeroon ni ay xara ku nekk aw sa yoonu bopp te aji sax ji yen ko sunuy njubadi nun ñépp man ak yow a tax almasi bi yeesu dee moom sàmm bu baax bi joxe na bakkanam ngir ay xaram nit musula dee ni moom mukk mëneesu ko tëkkale keneen kenn la ci nit ñi waaye am na beneen laaj bu ngeen war a tontu mooy lu ngeen xalaat ci ndamam ci dee maanaam ci ndekkiteem yeesu dee na ñu suul ko ay noonam def nañu seen kem kàttan ngir wattu bàmmeel ba ñu bërëng xeer wu mag ube ko bàmmeel ba tey ko ba mu dëgër ñu teg fa ay xarekat ngir wattu bàmmeel ba waaye loolu terewul mu dekki ci biir néew yi dëgg la boroom bi yeesu dekki na ca ñetteelu fan ba te feeñu na ay taalibeem gannaaw ga feeñu na lu ëpp juróomi téeméeri seede ci benn yoon nit ñooñu gis nañu ko laal ko lekkandoo ak moom gannaaw ndekkiteem wonoon na leen gaañu gaañu ya ca ay loxoom ak ay tànkam ak ca wet ga waaw dekki na ni mu ko yëgle woon moom tembe yàlla dekkal na yéesu ngir jox àddina sépp firnde ne nangu na jëfu yéesu ca bant ba ni sarax suy fay bàkkaar yi dee noon bu rëy la sunuy maam dee nañu yonent yi itam dee nañu te ba tey seeni néew ñu ngi ci seen biir bàmmeel nun it faaw nu dee benn bés waaye cant ñeel na yàlla yeesu kirist daan na dee mu ngi dund tey te mën na musal ñépp ñi ñëw ci yàlla jaar ci moom ndaxte mu ngi dund te dafa leen di ràmm ndax am na beneen yonant dund tey gannaaw ba mu jaaree ci dee ba noppi amul yeesu kirist moom kenn noot bàmmeel ba mu ngi dund tey ba tax nun ñi ko gëm dunu ragal dee dee mooy dem rekk nekk ak sunu boroom ca kaw waaw yéesu kenn la te mëneesu ko tëkkale ak keneen amul moroom ci kaw suuf ak ca asamaan lu ngeen xalaat ci ndamam ci dee beneen laaja a ngi nii lu ngeen xalaat ci yéegam ca asamaan gannaaw ba boroom bi yéesu dekkee ca néew ya feeñu na ay taalibeem ci diirub ñeent fukki fan noonu gisoon nanu ni mu tàggook ñoom yéeg asamaan toog fa ñu kay tere la ca ndeyjooru yàlla ca kaw wone noonu ne moo gën a màgg malaaka yi ak yonent yi ak nit ñépp moom la mbind mi wax ne yàlla kaweel na ko lool jox ko tuur wi tiim yépp ngir turu yeesoo tax ñépp sukk ci asamaan ci kaw suuf ci biir suuf te ñépp bokk genn kàddu naan yéesu kirist mooy borom bi ci màggug yàlla baay bi waaw yéesu kenn la mënee su ko tëkkaleeg keneen ci loolu nag beneen laaj a ngi nii ci sunu kanam mooy bii lu ngeen xalaat ci delluseem ci kaw suuf yéesu kirist dina dellusi wax na ko yonent yi yégle nañu ko malaaka yi wax nañu ko taalibey kirist yu wér yépp a ngi xaar delluseem dina dellusi jël mbooloom yóbbaale ko asamaan dina àtte àddina si ci njub nguuru ci kaw suuf sépp dina nekk buuru àddina si dafa wara nguuru diirub junni at ba noonam yépp sukk ci tànkam waaw dina dellusi léegi kenn ku nekk dina nangu ne mooy buuru buur yi kilifa kilifa yi mu ngi ñëw te yow dinga teew ci kanamam moom àttekat bu mag bi bés boo jàkkaarloog moom dina la laaj loo xalaatoon ci man nag looy tontu bu boobaa soo tontoo foogoon naa ne ab yonent kese nga ci biir yonent yi dina la laaj lu tax gëmuloo ko ci dëgg-dëgg te dina la daan ndaxte gëmuloo woon li yonent yi seede ci mbiram maanaam moom mooy doomu yàlla aji kawe ji jóge ci asamaan te benn musalkat bi am képp kan mooy dellusi ngir nguuru ibrahima muusa daawuda wala beneen yonent déedéet borom bi yéesu kirist mooy kiy dellu moom dina nekk àttekat bi yàlla firnde na lool bu wóor ci li mu ko dekkal ca néew ya mu ngiy dellu si bët yépp dinañu ko gis woom yépp dinañu sukk làmmi yépp dinañu wax ne yeesu kirist mooy boroom bi ci kaw loolu nag agsi nanu léegi ci laaj bu mujj bi moo di lu ngeen xalaat ci li mu bëgg ngeen def ko borom bi yeesu nee na ñëw leen ci man yéen ñépp ngi sonn te diis dinaa leen may nooflaay jébalu leen ci man te jàng ci man ndaxte lewet naa te woyof te dingeen am nooflaay ci seen xol tey jii sax mu ngi leen di woo ba mu woowee taaliba yu jëkk ya dañu bàyyi woon lépp topp ko seen kër seeni waa kër seen liggéey ak ñoom seen loolu la bëgg ngeen def ko loolu tekkiwul ne danga war a bàyyi sa kër ak sa liggéey ngir topp yéesu waaye danga ko war a jébbal sa dund gépp jox ko palaas bi jëkk ci sa xol dafa bëgg nga wóolu ko gëm ko nangu ko ni sa musalkat ak sa kilifa lépp la bëgg ci yéen sa xel sa xol saw yaram sa ruu su fekkee ni mooy ki mu teg boppam kon li mu bëgg lépp lu jaadu la ni nu ko gise woon yeesu kirist kenn rekk la te mëne su ko tëkkale keneen kenn la ci juddoom ci jikkoom ci njàngaleem ci ay jëfam ci turam ak ci ak ci coonoom ak deewam ci ndekkiteem ci yéegam ci delluseem ci kàttanam ngir soppi xoli doomu aadama yi mu ngiy dund tey mu ngi ànd ak ñi ko gëm léegi mu dellusi amul moroom ci àddina ak ca asamaan looloo tax mu am sañ-sañu nekk buur bi ak boroom bi ci seen dund yow miy déglu tey borom bi yeesu kirist dafa bëgg a nekk sa musalkat ak sa boroom loolu sax moo waral mu dee ca bant ba te dundaat am na doole ngir dindi say bàkkaar yépp may la diggante bu neex te xóot ak yàlla ba faw mën na la juddulaat ci laabal sa xol te yeesalaat la ci dooley xel mu sele mi waaye faaw nga wékk sa yaakaar ci moom ak saraxam li doy waar mooy bari na ñoo xam ne yéesu Kirist ku yéeme la ci ñoom waaye musuñu ko nangu ni seen boroom ak seen musalkat gëm rekk ne yeesu yonent bu mag la yem ca doyul faw nga nangu pexe mucc mi yàlla tëral nun doomi aadama yépp am nanu jafe-jafe mooy bàkkaar yàlla saafaraal nanu sunu jafe-jafe boobu waaye faaw nu jël ko su ma feebaree dem kër docteur mu bindal ma ay garab ma jënd leen ba noppi ñibbi teg leen ci sama kaw taabal di leen xool garab yi di ma xool ma leen di xool ndax loola dina tax ma wér déedéet ngir ma mën a wér faaw ma jël garab yi di ko naan ni ñu ko binde garabu yàlla mooy borom bi Yesu Christ ak deret ji mu tuur ca bant ba léegi lu ci des nag danga war a nangu ne bàkkaarkat nga te amuloo menn pexe ngir musal sa bopp ci àtteb yàlla bu jub bi di ñëw nag noonu nga gëm rekk ci sa biir xol ne borom bi Yesu Kirist gàddu na la sa mbugaluk bàkkaar soo gëmee ne Kirist dee na te dekki na ngir musal la kon yàlla dina la baal say bàkkaar yónni xelam mu sell mi ci sa xol may la sañ-sañu dund ci jataayam ba faw amul werante yow mii déglu tey ndax jël nga garabug yàlla bila la mën a musal ci musibay bàkkaar ak safara sudul fay muk ku xeeb garabu yàlla boobu nag di deradu almasi ji mu tuur war nga xam ne beneen garab amul ngir dind say bàkkaar amul yàlla amul meneen pexe ngir jubale bàkkaarkat yi ak boppam déglul bu baax li mbind mu sell mi wax ci mbirum yoon wu njub bu yàlla tëral ngir nit jub ci kanamam ba faw mbind mi nee na sàmm yoon wi taxul kenn jub ci kanamu yàlla waaye léegi nag yàlla feeñal na ni nit mën a jube ci kanamam ci lu sequl ak yoonu muusa dara waaye ba tey yoonu muusa ak wax yonent yi seddal nañu ko jub ci kanamu yàlla gëm yeesu kirist rekk a koy maye te képp ku ko gëm bokk nga ci ndaxte ñépp yem fa kanamu yàlla ñépp bàkkaar ba joteetuñu ndamu yàlla waaye gannaaw kirist yeesu deena ngir jot leen yàlla ciw yiwam mën na leen a àtte ni ñu jub ci dara wàcce na kirist mu nekk sarax ngir yàlla baal nu sunuy bàkkaar jaar ci deretam ji ñu tuur te ngëm rekk moonu ci boole noonu la yàlla firnde la ku jub la donte sax dafa muñaloon ñi jiitu jamonoy kirist ba jéggal leen seeni bàkkaar kon ci jamono ji ñu ne yàlla wone na bu leer ne ku jub la di àtte ni ku jub képp ku gëm yeesu te ba tey dëkk ci njubtem kana mën a bàkku nag ci kanamu yàlla kenn lu ko waral nag xanaa sàmm yoon déedéet ngëm rekk ndaxte ci yiwu yàlla ngeen mucc ci kaw ngëm te loolu jógewul ci yéen mayu yàlla la du peyu jëf ngir kenn du ci kañu soo waxee ak sa gémmiñ ne yéesu mooy borom bi te nga gëm ci sa xol ne yàlla dekkal na ko dinga mucc ndax te képp ku woo borom bi ciw turam dinga mucc amin mbokki déglukat yi nu ngi leen di gërëm ci déglu bi ak teewlu bi di leen sant ci li ngeen ànd ak nun ci sunu gëstu ci kàddug yàlla ci téeméeri njàng yi nu def fii ci émission yoonu njub na leen yàlla barkeel te lépp lu nu fi dégg nekk xéewal yuy baawaan ci seen dund nu ngi leen di fàttali ne émission yi ñu def yépp nag am nañu ci ay kaset ku leen bëgg a am ngir dégluwaat li ñu jàngoon boobu ba tey mën nga noo bind ñu wax la naka ngay def ba am leen su fekkee itam ay téere ci mbind mu sell mi ñoo la gën a soxal mën nga nu bind nu yónnee la ay téere sunu adresse mooy yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP e 370 Saint-Louis noo ngi leen di tàggoog ñaan gu neex gi nekk ci kàddug yàlla yàlla mi leen mën a aar ci gépp jeng te teewal leen fa kanam ndamam ngeen ñàkk sikk te fees dell ak mbég yàlla muy kenn di sunu musalkat na yelloo ndam ak màgg kàttan ak nguur jaar ci yeesu kirist sunu boroom démb tey ëllëg ba faw amiin